leen di di ko jot moom i tamit bu ngeen jotee kooku rek tamit euh, dina leen mën a boole ak sëriñ bi ngeen waxtaan ak moom ci soxla yi ngeen xamante ne am ngeen ko ci moom waaye sëriñ bi laataa ñuy dem ci deuxième partie bi rek euh, mooy ci ndëgg sërëx yi nga xam ñi ngi koy tegal Ousmane ko mhm. euh, ci li Sénégalais yi di wax ni dañu koy jéem a xañ pour mu bokk ci élection yu présidentielle 2024 mhm. bokk na ci bu jugee ci procès bii mu jëm mook Mame Mbaye Niang comme la nga cee wax du lu ñuy dindi. Mhm. ni dara du ko ci fekk waaye am na beneen bu koy xaaraat ca beneen semaine ba muy le 16 dox ci digganteem ak Adji Sarr nag boobu mille vingt 2021 la woon ba léegi. Mhm. gis nañu coow la nga xamante ne am na ci biir dossier boobu. Mhm. am na ci ñu bari ñu ci ñàkk seen bakken am ñu ci amay gaañu gaañu am euh, ñoo xamante ni seen alal ak yëpp yàqu na ci. Euh, waaye euh, gis nañu coow li nga xamante ni euh, dossier ba am na ko ndax moom ndey mbil gi ci boppam Adji Sarr mhm. tolloon nañ fi ay jamono gisoon nañ ay audio yu fiite mhm. doxoon ci diggam ak MC Niass mhm. mu di ci wax li xewoon lan moo tax ñu tëggoon loolu ni wax ni deal la waaye aji ci ci yeneen information wala ci ay kàddoom yi ñu amaat mooy que ni moom dafa doon seetlu MC Niass kàddu yooyu nekkuloon ay kàddu yu wér yoo xamante ni mu ngi ko doon dëggal kon procès bi depuis deux mille vingt et un ba léegi ñu fas yéene ci jëm le seize procès Ousmane Sonko ak aji Sarr ba balay sax. dinaa la jox ceeb loolu nag ngir maanaam li ñu sekk maa yow. Mhm. su ma soxla kenn mu ko tuddal. ndeysaan. waaw ndax ku ñàkk ñaan ko waajur da ngeen woon. moom Adji moom Adji Sarr damaa xam ne sénégalais ni ñu yaatoo daan ñu ci kenn ku dul moom ni ko yow yaay fi naan Ousmane Sonko. Mhm. tàjji daal Ousmane Sonko képp mën na ko sànq moom. ah bon tàjji nag dinaa la wax lu doy waar loo xamante dina ñëw di kanam aji bàyyi nga ni day am problème xel ci kanam tuuti. moom Adji Sarr. yàlla xam na ko. gis nañu daan nañu ko jiim naan dof naa doful. dina dof dof gu wér goo xamante si ni képp ku dina xam ne Adji Sarr mii moo tuumaloo Ousmane Sonko. ah bon moom Adji. moom Adji. mais mais mais Balla nga baal ma tuuti rek si côté xam-xam. tey ji nit maanaam mun naa wax kon du ku nekk ngay diiranteel mbagg. déedéet dafa am ñenn ñoo xam kenn du leen laal. dafa am ay doomu aadama yoo xamante ne nii. Mhm. gis nga ku leen mës a ba yàq seenu der bis dina sa der yàqu te doo ko sañ hmm? dafa bokk ci ñooñu xam nga turu Ousmane Sonko ci garaaw ci wàllu baatin laay wax yow nag. Mhm. waxuma saa de baatin laa la wax Ousmane Sonko. tey ñi jàng asraar xam nañ li may wax te ku mu neex na nga bind ndax en direct laa nekk. bindal mm-hmm. li may wax. Mm-hmm. te boo bindee nga adapté. ba mm-hmm. xam ne ma lay jox noonu lay toll a du toll noonu. Sonko boo jëlee Allahu. xayyun qayyum fattaaxun razaq nga jël turu Ousmane Sow ak turu yaayam boo ko adatee bii ma la wax moom la lay jox. est-ce que. Allahu xayyun qayyum fattaaxun razaq. soo adapté turu yaay Ousmane Sonko ak turu Ousmane Sonko 1037 la lay jox te 1037 boobu moo génn turu yàlla boobu am na neneen nu ma ko génne waatee sax noo xamante ne sirlul waxtu la lay jox sirlul waxtu mooy maanaam secret bi nekk ci waxtu yi 1037 la lay jox boo adatee yaay Ousmane Sonko. Mhm. ak Sonko di boppam ba nga adat ko xool sirlul waxtu ñoom ñaar ñooy tolloo même adat mhm. waa ki nga xamante ni turu yaa turu yàlla yooyu nga xamante ni mooy Karim xam ni turu yàlla moo féete lépp kaw yow mii tey boo doon laaj lu mel ni bayre di turi yàlla lañ la ko jox lu mel ni waduut ngay ñaan tey lu mel ni wërsëg turi yàlla yooyu lañ lay jox mel ni razaq turi yàlla yooyu dayaloo di Ousmane Sonko tey jii benn simple xale bu jigéen kenn xamul foo bokk ak foo def nga ñëwoon di nga fitnaal ko foo koy teg mm-hmm. fan nga koy teg li gën a ndaw maanaam ti li nga xamante si nii maanaam mooy Ousmane Sonko li gën a ndaw ci mbiram. te mm-hmm. Adji Sarr moom mooy dof waaye ñi nga xamante si ñoom toog nañ di wax publiquement ñoom ñëpp moom feebar bi ma la wax dina leen daal moom bu soobee yàlla. duñ ci mucc duñ ci mucc mukk. ah balay sa Ousmane Sonko biddéew bi xanaa war naa ci de. kenn xamut nu mel ci jamono jii ma toll. te ay yëfam du wàññeeku day gën. du wàññeeku mukk Ousmane Sonko maanaam lu waaye di gën di wax ci moom mbirum di génn a féete kaw wala faa naa ma ganaal wax ji ñuy wax daal mooy mooy mooy mun nañ ne mooy promotion bu Ousmane Sonko. am nga Sonko day koo xamante sax biddéew boo xamante ni maanaam jantum njoolal la. Mhm. jarul boo xam ne ku xool di nga gis. mbiru Sonko jëlul boo xante ku xool di nga gis nit ñi waxti moom ak ñàkk waxti moom ñoo ci am Sonko li ko yàlla def def na ko pare man damay gis ni fii nii képp koo xamante ni bëgg nga noflaay te bokk di état bi yow mhm. fas yéene ne yow ànd ak Ousmane Sonko ndax mooy sa noflaay waaye lu ko may di nga bokk ci ñeetu yi daal moom mais mais mais mais sëñ bi. Mhm. yii boo koy wax di ñu ngi gis ah, ah patriote yi sax wala <laughs> ñenn ñi ngi commencé di def ay kër ci commentaire yi. Mhm. ndax wax ji ngay wax parce que am na jamono ji ñu toll seen fit toogatul seen xel dalatul ndax ndëgg sërëx yi nga xam ñu ngi koy lalal Ousmane Sonko wax naa ci procès Mame Mbaye Niang nga ne ma bu tëddee na nelaw. Mhm. fam ne na fa nekk te xam ne dara du ko ci fekk ma ñëwaat ak yow ci bu aji Sarr. sëriñ bi Ousmane Sonko bu war a jàkkaarloog Adji Sarr ci procès boo xam ñi ngi koy xaar boobu ba léegi. <laughs> Sonko mu jàkkaarloo Adji Sarr. waaw. li weesu woon nu mu demee woon. mais verdict moo amagul ba léegi. Hmm? mais dama yow kon li ma bëgg nga ndax gars yi li ñuy laaj mooy que. yooyu terewul nelaw Ousmane Sonko. Hmm. diggante Adji Sarr Ousmane Sonko loolu loolu bu teree nelaw Sonko man ma génn di Sonko. eh waay wallaay. waaw ah. ndax Sonko moom xam na li mu yor. xam na ni moom du gone yi ñoo koy tardel te àdduna dama laa wax benn mbir moo xam dafa tëj wax ji muy ku yàlla bind mënoo mënoo teree nekk lu Ousmane Sonko bëgg a nekk. kon ñii mën nañoo noppalu. man xam nga aale état bi dama yàlla daf maa dimbal dama cee xam ñu baree bare. ci nguur gi ci nguur gi ñu nekk. Mhm. dama cee xam ñu bare baree bare bari na ñoo xamante ne maa duñ jugti man. loolu la yàlla dogal. Mhm. ngir ñaan yi nga xamante ne maa ngi koy ñaan ak aajo yi nga xamante ne maa ngi koy faj suñu borom du ma ci dimbali. Mhm. moo tax ñu baree bay duñ jug di man mhm. waaye man yenn saa nit dina ñëw di man sax ni ma mbiru Ousmane Sonko dama naan la bul àggale mhm. ndax ñoom ñëpp Macky Sall ba ci ku nekk ñoom Ousmane Sonko mhm. lu teree ñoom ñëpp Ousmane Sonko lu teree nelaw waaye yenn saa di man wax ak man ba si yàgg ni ma mbiru Ousmane Sonko bul àggale ndax kooku mystique taxul lii mu nekk mu ba ko wala mystique mënta tax li nga xamante ni moom lay xëcc du ko am dama ne la yàlla dogal na damay dogal ba pare jeex na aji saar yooyu yëpp lu waral jàll la rek. ku yàggu noppalu ci ay mbiri Ousmane sonk waaw ndax ndogal yàlla dal na ci moom ba pare. Serigne Cheikh Mbacke al Jamal surtout maam seex Anta Mbacke borom gaawaan. Mhm. yow loo wax téere la xam nañu ci dara. Mhm. waaye Serigne bi li tax yokk tax tamit ñu ñu andi la fi. Euh, pour nga jàkkaarloo ko téléspectateur yu Feeling Dakar. Mm-hmm. bokk na ci euh, xeetu faj yi nga xamante ne aussi yaa ngi koy faj. di mm-hmm. dimbali doomu aadama yi bu baax a baax. Mm-hmm. te ñun tamit dañu ci bëgg suñu ay mbokki internet yi nga xamante ne ñu ngi ñuy seetaan jamono ji ñoomi tamit nga baaxee leen ci. Euh, ndax fi mu bëgg ñu doore ko ak yow rek sang bi ci xeetu faj yi nga xamante ne yaa ngi koy faj. Euh, ba tax biir réew ak biti réew fépp waaye ay mënti nekk rek euh, ñi dañuy bëgg di di di di di di di am ci yooyu nga xam ni yow yaa ngi koy yaa ngi koy def jamono ji bokk na ci li ngay faj nag doon na ay xeetu kii yoo xam ne yu bari la am na ci benn fas boo xamante ni euh, loolu dafay baax pour ci ñi nga xamante ni mooy soxna yi. bu ñu ko déggee seen xool dina sedd lool yaakaar naa mooy fas wujju xam na ci fas boo xamante ne moom ngay wax fas wu su ma juumul andi nga ko wala. tey laal nga sama domaine de. loolu dégg loolu damay dégg ñu di la ko jëwee ni yaa ci mën foofu. moo tax ma ma ma ma dajale ci xeet yi nga xamante ni yaa ngi yaa ngi koy faj ni boo ñëwee ma baaxe ko mbokki internet yu Feeling Dakar fasu wujju fasu wujju nag euh, loolu fas gi moo ne nii. fas gee nekk nii. ah balay sa man fas gi foogoon naa sengoor gu xamante fasu wujju pour téye wujju. fas gee nekk nii. waaye damay ragal dinaa ko jox sa soxna de. non loolu nu ma arrangé <laughs> soxna la way jibi ñu may wax lu ne. <laughs> gis nga fas gi nga xamante ni moom laa yor nii. Mhm. fas la goo xamante ne te wujju rek lay dox. wujju mooy jigéen joo xamante ne bëggul wujju. mooy ñi ragal wujju bëgg ñu ko ragal. non lii kon jigéen ñëpp ko bëgg. ah man de leerul ma waaye am naa ne daal moom fas la goo xamante ne nii daa àndukaay wujje ko dafa jóg fas gi nag dafa am histoire. gi. waaw dafa am sama benn maam boo xamante ne moom la ñuy wax maam Moussa nekk koo xamante ne Serif Assane Fall la daan tarbiyu Serif Assane Fall doomu Cheikh Ibrahima Fall la woon làmb. Mhm. moom moo ko daan tarbiyu nekkoon na këram daanaka lu bari ci ay mbiram moo ko daan defal. sama maam jooj laa liggéeyal ba mu ma fas kii lii ba mu xamee ba tey sant yàlla. fas moom fas gi may na ma ci àdduna fas gi ngay gis nii. fas la goo xamante ne nii ñett fan rek nga koy takk tekki ko suul ko fuy dooy. maanaam eh, jigéen bu bu bu bu jëloon li ñetti fan la koy takk jigéen gi nga xamante si dafa bëgg a wéet ak borom këram bëgg koo not ba lu mu ko wax mu def ko lu mu ko defee mu bàyyi ko te ji ku góor ki dootul xool keneen ku dul moom xam ne ilaa aaxiral abat ku góor ki moom dootul takk keneen ci àdduna xam naa loolu dina arrangé moom ku mel ni yow. <laughs> waaye gis nga fas bii maa ngi waat seen tuwaane jigéen joo xamante si xës na koo takk ñetti fan ba tekki ko suul ko fuy tooy du fas gi nag dafa am yu muy ànd. dafa ànd ak noob goo xamante ni moom lay ànd noob gi ci meewum bëy lañ koy def. ci meewum bëy. waa ak loo xamante ni dañ koy daaj ko di ak guy. képp koo xamante ni dugg na sama TikTok Jamal Mbacke 4 di nga gis ni maanaam ni ñu ko fay liggéeyee foofu mhm. fas gi moo nekk nii ñett fan rek nga koy def takk ko sa ndig ñett fan tekki ko suul ko fuy tooy doo am wujj ko ci àdduna moo xam Sénégal nga nekk moo xam bitim réew nga nekk ku nekk di yéen mën na cee am waaw. man de balay xam naa jamono jii ñi ngi njëkkante sa numéro bi ci suuf. jigéen ñi ah, moom daal mi ngi nii ñi ma ci xam bari na de. ñoo fas lu ma dégg ñu di la <laughs> jëwe la ni ni ni ni euh. moom euh, Serigne Cheikh Mbacke Al Jamal am na fas goo xam ne ni mi ngi ci moom boo bu ñëwee toog nanga ko ko laaj far yàlla nga ndaaleel ma ko. fas gaa ngi nii man sama kër tey bala yàlla nattoo nga ñëw fa diggante 9 mhm. ba heure bi may wax ak yow ñëpp daanaka man ci fas gi rek laa ëpp lu may liggéey fas gi rek laay jox te dafa am dafa am maanaam gis nga mbir. Mhm. woote woo ko yomb na waaye xam ko moo jafe. Mhm. tey jii bari na ñoo xamante ne ñi nga wax ni ñooy borom fas gi ñooy borom fas gi wallaahi lazim xamuñu fas. dañu koy dégg ci yow rek ni. fas gi may fas ali benn la ci réew mi te jamaan baakee koy joxe. Ah. ku na ku mu neex nag mën ngaa am sa xaalis dem ci beneen sëriñ ni ko fas wuji laa bëgg bu la joxalee nag bokk ci sëriñ si lay nax ah, da ngay dem daje ku dëgër fit ba mel ni man waaw parce que man li may wax saa su nekk rek ñun dañuy jomb maanaam di wax lu dul dëgg ñun jëm ndax dañoo bokk fu baax a baax te te te sang bi liggéey bi ngay liggéey li ci gën a neex wax dëgg neex fa yàlla mooy garantie bi nga xamante ni da nga koy garantie sa ay client man jox naa ko tey nit koo xamante si nii maanaam une semaine moo war a des ñëw war ko wutal wuti bi ma ko joxee wallaahi lancim barki démb la rek billaahi wallaahi wa dañ koo mujj annulé te dama ko waxoon ne ko boo saa soo ñëwee maanaam ñi takkal la wut na nga ñëwaat ba sama kër xam nga fi ndax man koñ ba ma dëkk suñ boobu dafa maa dimbal samay taalibe rek ñëw ma wër waaw kon ba ma dëkk samay taalibe képp ñoo ma war foo ñëw ni kër sëñ Cheikh Mbacke aljamaa dañ naa la may nii dama ni ko suñu la takkalee wujj na nga ñu ba nii may waxee anit la nañ ñëfi kon man lii ma nekk nii damay rusa wax lu dul dëkk ndax damaa bokk fu baax sama ndey mi ngi dund sama baay mi ngi dund sama waajuru góor Mbacke la sant sama waajuru jigéen mi ngi fi mi ngi dëkk Pire kon ñun rus nañ di wax loo xamante ni gëmuñu ko te damaa amee ay taalibe dëkk bi am fiy nawle kon lépp lu ñu wax rek lu ñu gëm la maa ngi wax ni daal képp koo xam yitte woon a fas gii may joxe. Mhm. maanaam incha allah moom dinañ la ko jox. dëgg la waaw. bala sa beneen ba dëddale. waa dëddale nag diis na di baat. te mhm. dégg-dégg. waaw pour nit ñi comprendre ko. waa diis na mais dëddale bi li ma ci jublu lenn képp la yenn saa yi tey am ay jigéen ñoo xamante si nii. Mhm. dañuy nekk ci seenu sëy. seen sëy boobu ñu nekk ñu lekk fa ceccax lekk fa mbaxal muñ fa sonn fa loolu. am jeneen jigéen joo xamante ne tey dafa bëgg a ñëw nangu seen borom kër dëdd la gi nag looloo ko tax a jóg maanaam bépp jigéen boo xamante si nii am nga sa borom kër nga bëgg a wéet ak moom mm-hmm. am jeneen jigéen joo xam dafa bëgg a ñëw nangu nangu ko turu ka ko a nangu rek nga bu ñu lu ñu koy génnee te xeen mën na jum te xam-xamu a nangu incha allah am na lu ñuy def loo xam te ak timis rek lañ koy heure timis lañ koy def benn taal lañ koy taal diggante ba daal di yàpp di sa asi benn taal waaw lu ñuy def la mu ànd ak ay Euh, nu ma ko mën a waxee sax rafetal kàddu gi waaye dem àllu xaj mhm. dem àllu muus bu ginaar kaani ak soble teg ko ci kaw xaatim bi ci benn jolaay lañ koy taal diggante ba yàqu waaw sëñ bi loolu day na waar de bàkki sëñ Tuuba <laughs> man li tax samay wax maanaam neex mooy da man damaa bari résultat macha allah. waaw loolu am na lu ma dégg ñu di la jëwee man maay sel sëriñ boo xamante ne ku ma neex laay dugg ku ma woo ma wuy la du ma rejeté kenn mais sëñ parce que dafay am ñenn ñoo xamante ni dañ nit ñi dañu leen di jox seen xaalis di leen woo di leen te du ñu leen jot wax dëgg neex yàlla. loolu àq la ku koy def boo dewee dem sawara. ndax lu doy waar la loolu war nañ ci dimbali nit am ñett fan bàmmeel moom ni ko waxee rek ku ko du xalaat lu neex defal. Mm-hmm. waaw tax xaalis boo mën a am ci àdduna bu dee ay milliards la boo nelawee tey fàtte ko te boo dee ñàkk. ndeysaan. waaw léegi lu mel noonu nag boo ko xamee yow ko teg ci yoon moo tax dañuy fexe ba lépp loo xamante ni maanaam danañ ko defee pour suñuy suñu mbir gën a mën a tegu yoon ñu koy def am na solo waaw noonu am na solo macha allah tubaarkalla macha allah eh, feneen foo xamante ne nag dama fay dem. Mhm. sonal sonal na eh, góor yàlla yi lool lool lool. Mhm. bu ñu ko waxee ak bu ñu ko waxul. Mhm. ndax dañuy